jërë ngeen jëf xalam demoon na bay neex buum ga dagg match sub Sénégal ak Côte d'Ivoire doon seet ban équipe moo war a dem ci coupe du monde bay am ca Brésil yéen a kaay yëpp xëy dellu si waat ca ak gaynde yeeg jaloore yee ñu def laas

woon exploit ba tuuti konoon moo des ñu ne Sénégal ma nga ci coupe du monde bay am ci diwaanu Brésil populaire xëy ci dellu siwaat làkke ñu ko neneen mu di lan gaynde Sénégal coupe du monde ba sori ko waaye euh, yàlla def na Côte d'Ivoire moo cee dem ba tey yéen kay bi ñu nga xam nañu nii ba boog équipe gëj na leen a nii ci wàllu football euh, Sabri Lamouchi si yéen kay bi dikkal ñu ci ay kàddoom leneen loolu populaire wax nañu ko moo di direct info xëy ci dellu siwaat nañu nag waaye koy bu leen gàcc gàllaanga gayndee sénégal liggéey nañ lu rafet def nañ lu baax football nañ lu rëy waa sport nañu gayndee buñ doon ñu faatu la nañu ne dañoo taxaw ba noppi faatu maanaam les lions sont morts debout ndax liggéey bu rafet boo xamante ne ji liggéey nañu ko fa pap ñu wax weesu wàllu tàggat yaram te dellu ci populaire waxtaane leneen mu di lan lu aju ci li ñu dippee agence pour la sécurité de proximité yéeni bi xëy ci dellu siwaat ak ko sampee ci réew mi ko ak di samp laaj moo di lan ndax ay milice yoo xamante ne dañ ko bëgg a teg ci réew ngir nguur gi ndax nguur gi du mooy jël ay milice bëgg leen a teg ci quartier yi Serigne Mansour Sy Djamil ne ci observateur ñëw ma la déet Macky Sall ak ni muy doxalee ak agence de sécurité de proximité yooyee wute wut ak la Laurent Gbagbo doon def ci fi nga xam ne moo di Côte d'Ivoire kaddu Serigne Mansour Sy Djamil la ñu des ba léegi ci observateur fekk fa kaddu kan Alioune Badara Cissé àndandoo Macky Sall ba woon ca ñu jëlee ko ca coordination bu APR wax na fa lu ne eh, yéenekaay bi di ñu xamal ne moom Alioune Badara Cissé candidat la ca mairie bu saint ba tey yemu nee na leer ne Macky Sall ñun mosuñoo laaj dara eh, candidat la ca mairie bu Saint-Louis ca it xaaru ci ndigalul kenn ndar la dëkk am na droit laaj mairie ba ñu fekk ci beneen yéenekaay moom Alioune Badara Cissé mu di Walf Fadjri mu waxaat fa ay dëggam dëggee ma xët mu njëkkulaas ngi nelaw bu ko neexee nelaw ba yandoor heure bu ko neex na yeewu waaye a xam ne nag yeew moom am na te daa war a yeew ñu des ba léegi ci laas ak mbiri Diène Farba Sarr Diène Farba Sarr bi di laas nañu muy mboom di ki nga xamante da leen a gonflé maanaam dafa gën a yokk seen i galon euh, libération ji moo ko moom nañu dellu ñun ñëpp ci le quotidien xooli ñi nga xamante ne ñooy hémodialysé yi ak euh, fa dal ak jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo ngi koy tund le quotidien xëy ñu xamal ne toll ci juróom-ñaar fukki malade ak benn ñëpp dañu leen a contaminé la leen contaminé journal bi armi ñoom ñu doon ci anam yi nga xamante ne noonu lañ doon defee hémodialyse bi ña doon def loolee journal bi ñu jàpp leen la tëj nañu ko te it ñoo ngi wéyal inspection yi xool ndax amul ñeneen ñoo xamante ne ji li waa américain doon def ñoo ngi koy def ba jot a contaminé lu toll ci juróom-ñaar fukki malaat ak benn